billah bisimillah inna walillah ma tawfiq illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi donga leen a fàllu fay moo ñëw tey rek fas yéene eggale waxtaan wi mu tàmbali woon ci jabootu borom daarul moxti maam Cerno Ibra Faati tey nag ñu indi kenn ci doomi maam Cerno Ibra Faati yi ku ñuy woy Sëriñ Moodu Habib Mbàkke moom maam Cerno Ibrahim ak soxna Mareem Balla silla Sëriñ Moodu Habib nag mi ngi gane àdduna ci atum 1897 ca guy nguraa booba sëriñ bi mi ngi ci géej gi maam Cerno tuddee ko maam Anta Sali waajuram mook sëriñ Tuubaa seen waajur muy maam Mor Anta Sali moom la ko maam na tuddee mu bokk ñaari waajur sëriñ Abdou Khoudous ak sëriñ Mahmadan Mbacke Koso sëriñ Mahmadan Mbacke Koso ak sëriñ Abdou Khoudous ak sëriñ Modou Habib Mbacke mi ñoo bokk waajuru góor ak waajuru jigéen maam Cerno Ibra ak soxna Marema bala Sill mun sëriñ Modou Habib nag nekkoon na ku bari lool xam-xam bokkoon na ci jàmbaari sëriñ Touba yi yéeme lool ci bëgg sëriñ Touba ak daan ko liggéeyal booba ci ñaan bokk na ci ñi daan bokk na moom ci ñi daan bindal sëriñ bi te gaaw lool am bind nee na daana dox sax di bind daana bind te du ko xool bindal na sëriñ Touba lu tolloog juróom-benn fukki kaamil ak ñaari téerey fulkul masoon loolu soo ko xoolee day tolloog li mu dundu dunduk sëriñ Modou Habib Mbacké ndax mi ngi gane àdduna ci 1898 la la gane àdduna wàcc liggéey ci 1960 kon soo ko boolee mooy 62 ans mooy ak dundam mu bind ci 60 kaamil ak ñaari fulku soo ko boolee mooy 62 sëriñ Touba gërëm ko ngërëm lu rëy lool joxoon na ko ñaari doomam moom sëriñ Touba jëloon na ñaari doomam yu jigéen jox ko sëriñ Modou Habib kim ko njëkk a jox mooy soxna Xadi Mbàkke mi nga xam ne moom sëriñ Basiiru moom sëriñ Tuubaa ñoo bokk ndey ak baay moom la ko joxoon yàlla def mun teel a noppalu fa ca njaareem ca la ko jox soxna May Kubra muy soxna May mu mag nga xam ne soxna May moom mooy waajuru sëriñ Moustapha May mi ngeen di dégg soxna May Kubra mii nag moom sëriñ Abdou Khadir ñoo bokk waajuru góor ak waajuru jigéen moom la ko joxaat fekk na booba soxna May dafa bindu kaamil di ko indil sëriñ Tuubaa mooy kaamilub soxna May ba mu ñëw fekk sëriñ Modou Habib sëriñ Touba far for leen a boole benn yoon ca la ko ko joxe mu dëkkoo ko doon soxnaam sëriñ Modou Habib sëriñ Touba bind na xasida Taysirul Ansir xasida Taysirul Ansir bi ko sëriñ Touba bindee muy mbind mu tooy xepp ci loxol sëriñ Modou Habib Mbacke moom borom Daarul Muxti la ko njëkk a teg keroog bi ko sëriñ Touba di yeewi da koo fekk mu toog moom sëriñ Modou Habib sëriñ Touba jël satal ak ndox gu fees dell ak ndox sotti ko ci kawam. moom sëñ Modou Habib ba satala ga jeex sëriñ Tuubaa ne ko dellul daarul muxti ca sa baay Cerno yow nag sey mbir man maa koy gàddu ba faaw mu ñëw waajuram dénk ko lépp lu aju ci dëkk bi nekkoon chef de village su daarul muxti moom sëriñ Modou Habib daan atte teg dëkk bi ci yoon am am am fu sëriñ Moussa sax di woy naan ko xanaa xamoo Mouhamadou Habib moo bari xam-xam xallimul Habib siyaare leen ko te jox ko ay hàddiya xam-xam ba ba raw na xamub riwaaya moom la ñu tuddee xaadi mamar anta baayu sëriñ ba yàlla na ko mel ni jant lii lee taxoon muy atte daarul moxti jox leen ko xët yi bu leen ko fàbbi ci parti lii sëriñ moodu oh, sëriñ Moussa Ka moo ko woyoon sëriñ Modou Habib Mbacke mi nga xam ne doomi borom daarul moxti la sëriñ Modou Habib nag mi ngi wàcc ab liggéey ci atum 1960 ñu denc ko ca bayti fee ca baayam ñu ngi ñaan yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem moom sëriñ Modou Habib Mbacké nga xam ne doomi borom daaru la ak soxna Marème Balla Sill ñu dénkoon ko soxna Xadi Mbacké mi bokk sëñ Basiru ndey ak baay lañ ko njëkk a dénk yàlla def soxna Xadi teel a wàcc liggéey ñu jël soxna May Kubra mi bokk sëñ Abdou Xaadir ndey ak baay dénk ko ko mu am ci sëriñ Moustapha May kon sëriñ Modou Habib ba ngi noonu du kenn di kenn ci njabootu borom daarul muxti gi ñu ñaan yàlla na yàlla yokk leeram te tax suñu ci barkeem ci barke borom daaru muxti